Neck and I neck and neck, be my neck, neck and neck, be my neck. Neck in a jig, jig now a jig. waaw waaw am na am na bleu na mm-hmm. pratiquement daal mooy loolu parce que ñu xam nga ne couleur yi moom mm-hmm. dañ dañ ko bëgg dëgg ma ne ko dañ ko bëgg dëgg xoolante na ba waaw gis nga gis nga bi yow mi nga xamante ni sa sœur baa nga ca néegu sëy baa di sëy macha allah dama bëggoon nga ñëw rek xoolal joxal ma ko bii cadeau daf may neex de ah

comme ah, ça si def ay kii daal. waaw message yi dañ ko dañ ko ci dañ ko ciy bind ma ne ko message yi dañ ko ciy bind. léegi pañe yi euh, comme genre pañe yi lay waaw man nag sama pañe ci laa koy defar man nag pañe yi may defar ci pañe dentelle bu rafet yooyu laa koy defar waaw parce que damay bëgg tout le temps muy moderne di civilisé trop. nga xam ne di nga ko mën a tekki sa coiffeuse ak yooyu. Mhm. waaw fleur boobu it. Mhm. sama sama cliente yi xam nañ ko ba mu doy parce que gis nga ni mu tàkkee nii. waaw moom da ngay laal sa drap bu blanc ba mu baax rek. Mhm. boo defee sa ay message rek say salin salin si kaw laal bi ba mu très bien mhm. moom ngay jël taal ko ba bopp bi di tàkk nii rek nga tëral ko. xanaa li mooy bul bougé nag. foo jëmati. Ah? yii yëpp. yi maa ngi ko réglé ba set fooy demati doo dem fenn. xam ne ay loob ak ay kër lañ ci def. daal da dañuy dox ci lépp loo xam ne day neexal xolu suñu góor ñi day neexal kër rek kese. Mhm. waaw macha allah commencé ko ca message ya fu mu tourné gis ci boppam mhm. affaire bi di neex ci lépp ñun loolu ci loolu lañu rek la ñu dox lool rek la ñu wax. waaw ah, ah, gis yi ma la doon waxee nii. ah si pañe yi nga koy ba dee nga sañ si guddi rek. gàddu ko rek def ci sa bagage yu sew rek. Ah, jaaga jaaga rek moom mel ni kuy duggee. bu eh. flyer. aywa def yi mën naa def yeneen gis nga waaw yemul waaw teg ko ci sa kaw coiffeuse rek bu ci nekk nekk ak la ca war a dem. te da ngay bàyyi ba guddi jot. waaw da bàyyi mën ngaa xaar rek gis nga bu timis xasee passé rek nga nga commencé xabaar. fekk xale yëpp dem nañ tëdd. waaw bu sa nekk bu fa xale dugg néeguma xale wutu fa dara néeguma xale wutu fa dara la ko wutu. daal moom interdit nañu. waaw gaa def ba mu baax bu la bu la kenn yàqal. waaw bii aussi même chose day remplir ko da ngeen fekk yi fi nekkoon jeex mm-hmm. mais dañ ci def touray importé yi lañ ci def mm-hmm. cinq cases mo ci nekk fu nekk fay nekk ak touray voilà mais day différent quoi waaw différent qui moo ci nekk différent senteur comme li ma la woon sànq ne la sept jours de la semaine bii cinq kii dafa dafa ànd ak ànd gis nga ànd yi lay àndal parce que des fois nga am ci ànd bu mm-hmm. nga boole ko ak moom xam nga bii sax xëy na biñu génnee légui tay dafa argentin je pas fait attention waaw mais and bi lay andal ànd bi mën na nekk and bu doore mu ànd ak moom nii rek nga def ci sa sa cinq façon variété cuuraay rek teg si wetam. waaw mais moom it macha allah daal daraa ngi ci daal vraiment ah, bëgg nañ ko trop vraiment bëgg nañ ko. Ah, gis nga and bi day denc xal. day denc xal mën na def deux jours xal te du te du fay. te du fay waaw mën na def deux jours xal te du fay. léegi yëpp ci yi moom waaye yi moom fan lañ koy def nag yi. waaw yooyu yooyu moom dañ koy wéttali ndig rek. yooyu moom disket yeeg ñëpp ci biir. waaw yooyu moom disket yeeg ñëpp ci biir. tudd wala lan la ñu. waaw yooyu moom peme la. nan ah. mm-hmm. la peme peme. peme waaw. dañu wax ne dafa baax sax nag. dafa baax dañuy dégg dafa baax peme dafa baax waaw gis nga gis nga. loolu di peme. waaw gis nga kon mbokk yi xam ngeen ne peme ngi nag. dafa baax ci nit daf lay aar. xam nga am naa ci yu sew am naa ci yu yu yu kii aussi. Oh, yu yeneen yu gën a dijj yooyu oh, voilà. gis nga bii aussi gis nga. bii moom si ndigg nga koy def rek bi ci ndigg nga koy def rek. say façon say manière gis nga. ay dégagement yu baax. waaw ah, lan sa basan rek jàpp lii nag lii nag góor bu ñu ko defal nag nag fan nga jëm nag. doo dem fenn chéri ah. wax bi lool rek. dañoo war a toog nag doo dem fenn nga dul dem dootoo bouger daal. bu ñu waxantee dëgg moom dem fenn jeex na. góor ñu ko la jëlee baax xam naa ne yow war ngaa mën a defanteeg ñoom bu baax. bagage bi daal la ngeen ñu chéri wax dëgg yàlla daal macha allah yi aussi même chose yi aussi gis na yi aussi ay peme la yi aussi ay peme la moom tamit. Mhm. ci bagage yi la bokk ci bagage yi gis nga ay cristal yi. ah mbokk yi loolu wax ci lii xam ah, ngeen daal li fi nekk daal ci xeeti baax baax ci mënuñu génnee yëpp. Ah? ma ne nekk daal ci xeeti baax baax mënuñu mënuñu sax génnee yëpp. mënuñoo génnee ma ne ñoo mënuñoo génnee yëpp vraiment mënuñoo génnee yëpp. ah lii nag moom nag dëgg neexul nag macha allah. mooy noonu fu la neex daal génn bu la neexee mu sew bu la neexee mu dijji. la neexee mu dijji foo fu la neex rek mu génn macha allah fu la neex rek nga génnee ko waaw. waaw xam naa ne nag instant bi nag defe naa ne gars yi ñi doon seetaan émission bi nag xam naa li ci des bëri la tàggu askan bi nga xamante ne ni ñoo eh, ñuy seetaan mbokk internet yi parce que émission bi presque li ci des bëri. ah ok waaw merci beaucoup ñu ngi leen di remercier comme ni ñu ko daan defee rek. di leen sant bu baax ci seen disponibilité macha allah. di leen remercier aussi ci suivi bi ma am sama diggante ak yéen. parce que macha allah yéen a ngi xool tout le temps lu wàcc yéen ngi xool tout le temps lu gën a dem. voilà euh, di yokk visibilité bi di ci remercier de passage sama sama càmmiñ Moussa vraiment parce que jàpp na ci bu baax a baax. di remercier sama sœur yu nga xam ne macha allah ñoom. maman ah. ak euh, Adja waaw à kumba ñoom franchement parce que ci la, la laa déparé woon voilà di beral Nak nuyu Adja lu bare bare parce que vous m'avez Sénégal TV yàlla ak tax voilà mu def loolu ñëpp mais ci macha ba ci directeur Lamin Mbengue maa ngi remercier franchement ñëpp mhm. sans oublier nag ni koy tout le temps sama ay clientes ndax man fu ma nekk ñoo ma fa bàyyi maa ngi am ay clientes Gambie Mauritanie Mali mhm. Eh, Sénégal nak mom dama jëlale parce que euh, wax deug yalla région bu ne la nga fa am légui dañuy dem ba dañuy ne dañuy nekk ay fournisseurs moom tamit comme ni ma ko waxee ci sama émission yépp wa machallah légui à l'extérieur aussi même chose en Allemagne, Suisse, Angleterre, États-Unis, Espagne, Italie, xam nga, hmm. masha Allah, fep fep fep fep fim na ni. Brésil da lañu xawata parce que dañu amagul GP bu fa jëm. Dama ne sama client yi. Brésil sax xam na né moy lolu ñu ngi fay ñëw Légui internet di bu ma sétané ku ci am euh, GP bu jëm Brésil mu dimbalé mo ci parce que j'en ai vraiment plein de commandes dama am ko ko yow inshallah. Voilà, di remercier dal ñëpp di remercier vraiment sama borom kër bi nga xam né ah, duma jog ci di wax ci mom masha Allah gis nga saak yi nga fiy gis yëpp macha allah carton yaa ngi ci biir. Mm-hmm. daf may yónnee tout le temps bagage yoo xam ne du ma xam sax naka laa koy def macha allah waaw vraiment ndax ndax doom par sax ci sot la bokk. te kooku xam na ne maag moom ah eh, xamante nañ jeex na foofu rek laa yem. non aj beeg aj bi xoolal naan kan xoolal ñëwal. ñëwal non instant bi gis naa sa ordre bi bul décoder sama collage. baal bu foofu bàyyi noonu. teggi sa tànk xale du dugg foofu. non parce que xam nga lan moo tax ma gis hmm? dama ko gis. parce que hmm. ni nga ko ne ni nga waxee ni ba piis ko loolu. mooy ñëwal waaw gis nga moom moom xam na moom xam na. nga di ko remercier vraiment daal di ko ñaana di ko ñaanal bu baax a baax yokk ba yokk franchement sama diggante ak moom macha allah sama xarit la sama sang la sama sama frère la sama confident la macha allah waaw amin allahuma amin di wax ne yàlla na yàlla may jàmm jooju jeeg yépp macha allah parce que macha allah sama lépp la vraiment ma diggante ak moom amul frontière lépp la ma yéenee sama lii daf ci jàpp ak nu mu munee yàlla rek lañ koy bàyyi mm-hmm. yàlla lañ koy bàyyee di ko ñaan yàlla nag mu gaawantu ñëw aussi parce que nam nañ ko xale yi temps <laughs> yi dañuy jooy rek macha allah xale yi la ko jaarale nag di remercier oh. yaay di remercier sama yaay mi nga xam ne moom it vraiment sama xarit la mm-hmm. sama xarit la vraiment sama xarit la bu may wax ci mom damay am émotion waaw sama xarit la lu bare bare bare daf ma jege torop torop torop macha allah di remercier sama sœur yi di remercier sama papa sama livreur yi ñi nga xam ne ñoom faral di liggéeyal ñu di ci japp parce que transport yi ku ne xam ne bu du ton ak ñoñu du ki ak GP yi sama copine à Luxembourg euh, ñëpp ñoom Caba Caba France voilà pratiquement ñëpp am na benn mami États-Unis ñëpp daal wax dëgg yàlla ndax légui xoolal dañuy dem ba bala ñëw dem sax dañ may wo bu ñëpp cëpp Sénégal dañ may wo madame so amé bagage yuy dem nga préparer damay dem tel jour mu neex trop ci ah, parce que xam nga bo gàddoo say bagage te amoo ku la ko day doon problème ñi nek Sénégal amuñ problème parce que même ba Mali même ba euh, Niger mm-hmm. amna ay bus yu dem xam nga ci digënté bi amul ben problème mais côté yooyu day xaw difficile suñu amul GP té ñun doo mëna a yóbbu tout temps bagage mais légui presque dañuy day commander bala am 2 jours mu jot bagage ma te loolu sant Yalla la ndax bu lo nag suñu partenaire yoy di nekk ci digënté bi kon ñun duñu mëna réaliser loolu di len ci remercier de passage di remercier encore une fois wa Sénégal TV yépp. di remercier mbokk internet yi ñi sétan té ñu bàyyi sànni xeer yi damay ñaan goor ñi nañuy lire vidéo yi ba muy yegg nañu bàyyi gis numéro affiché ñu jël numéro bi di wo borom xaaju guddi man dama am borom te doxuma ci daray caaxaan o ma joti kenn ini allah lii may liggey kuma ci meuna fekk mu yok ma jël su ne len luy yak la rek nama sori parce que dama amul joti trade ci len lu mu ci doon vraiment di ñaan goor ñi ku ci gis sama bagage aussi mu intéressé la nga bolé ma ak sa soxna macha allah parce que buguma di traiter ak goor ñi sama slogan la nañ ma ko respecté ñu dimbalé ma ci lool kuma ma ak sa soxla nak doon ta waxtaan la bu sobe yalla dinañ jappo ba nga xamné amna lu bari lu ci yok parce que macha allah ñun yalla may nañu lolu te bëgg nañ di ci dox lu sore sore sore waaw kontaan nañ vraiment man li may wax rek mooy que ni ñaan bu nangoo day sonal borom ba tax na nag euh, madame Thioye loolu yëpp sant yàlla la parce que doomu aadama yi ni ñuy gisantee ak euh, ni ñuy xalaatee du benn mm-hmm. parce que doomu aadama bu ne ak ni ko yàlla bindee donc day am ñoo xam ne dañ lay apprécier am mm-hmm. ñeneen ñoo xamante dañuy polémique daal daf leen neex mais loolu yëpp euh, bokk na ci li nga xam ne day defar doomu aadama bi mm-hmm. te bokk na ci li nga xam ne moom moo lay yokk ba nga yëg ko ah. ñu lay ñaanal rek ci kaw ci ci kanam ci lu baax xam naa ne nag oo nga sëriñ sëñ bi nag ci pet noonu <laughs> mais xam naa dina ñëw insha allah yal na ñëw ak jàmm fekk fi njaboot gi nee nga njaboot gi ne yaa a nam ma ci biir loolu bi nga xamante ne ni xamante ne mooy nekk ñu jigéen ak kër jéeg ji ah tey nag ñu ñëwoon seet see madame Thioye xam ngeen defe naa lim leen indil neex na leen torop te jonge dafa baax ci doomu aadama ci jigéen ci góor ba tax na nag ñu leen di remercier yéen mbokk mbokk internetu Sénégal TV yéen ñi nga xam ne a chaque fois da ngeen ñoo safoo lépp lu ñu def euh, mu neex leen loolu ñu leen di wax ba beneen yoon ci seen beneen numéro nekk ñu jigéen may nuyu sama caméraman ñu koy wax nag Moussa chef personnel xolal ma kenn ñëpp maa ngi leen di big di leen wax ba beneen yoon incha allah ciao peace and love. nekk naa nekk ndax nekk.